d'habitude mhm. parce que balaa nga kaa xam tey ji nga dem ci kër yi góor bu ñu xasee ba joxee dépense après li xew ci kër yi xamaatuñ ko mhm. mais ñun lépp lu ñu liggéey rek dafay dellu si waat ci kër yi vous approuvez jaadetuñu ah, dara da loolu moo am sax ñun ñun lépp góor bi bi lay jox mais joxatoo leen ñu sax ñun ah ñun ñun indépendante macha du ñëpp kon ñun on indépendante jamono ju ñu nekk nii financièrement dañuy fexe ba débrouillé wu ki nga xam ne day jaay caaf macha allah mi ngi fexe moom li muy jaay mu am ci loo xam ne c'est rentable stable dina ci mën a yor këram ak lépp keneen ak keneen noonu ñun on est indépendant suñu génération tey xale jigéen ñoo macha allah kenn xaaratu dara ci góor qu'on se dise la vérité xaaratuñu dara ci góor. xaaratoo leen dara mais mais attends xaaratoo leen dara mais mami mami xaaratoo leen dara mais xoolal li ngeen di dajale yëpp. Ah. pendant un mois six mois ngeen def ko ci xew mu jeex. <laughs> marqué na xam nga loolu loolu loolu yàq non attends parcelle il faut loolu yàq la. mënoo dajale ay góor tamit yu mën a yàq ay góor yoo xam ne naan man man keroog rek maa ngi dégg ku naan sama mariage non yàq naa ci lu tollu huit millions. non mais jigéen ñi mais combien de ndeyale vous avez ah, yëpp euh, dëgg la. Oh, euh, man je me dis qu'il a d'une part am na raison ci ñun parce que jigéen euh, yaakaar naa ne dafa war a conscientiser boppam et on doit sensibiliser aussi les femmes suñu rôle la donc nga liggéey investir un million liggéey ko ba mu doon deux millions jël deux millions yëpp la nga liggéey ak bénéfice ba nga am yëpp au lieu nga jënd ay matériel yu bees au lieu nga gën dem fay ay formation dem jàngi gën a yokk sa xam-xam nga jël ko xewee ko loolu du xel et aussi je voudrais lancer vraiment un message aux femmes vous voyez que les organismes internationaux ñi ñëpp ñu ngi bobbeeku di ñëw fii Afrique de l'Ouest pour dooleel jigéen pour euh, booster l'entrepreneuriat féminin c'est le moment de prendre vos rêves et aussi de les euh, vraiment euh, réaliser rêve boo gis ci bind ci këyit le njëkkee boo bindee ci këyit nga daal di dem oh bind ko en projet boo ko bindee sa projet nga dem def sa étude de projet boo defee sa étude de projet daal di jubali ba applique boo jubalee applique nga daal di def li nga xam ni moom mooy demande d'information pour xam yow ban type d'entreprise nga war important il est temps les femmes de vous lever il est temps aussi vraiment euh, de vous formaliser c'est très important da ngeen génn milieu informel parce que lépp li nga xam financement la lépp li nga aide la pour l'autonomisation de la femme da leen c'est très important. li mu wax am solo mais loolu xanaa pas dina ci def papier. waaw ñu war financement yi. on sait très bien de quoi on parle bu ñu la waree am na chantage am na chantage. am na chantage benn eh, la benn affaire finance financement yi amul chantage parce que comme li nga xam ni lu ci mel ni financement wifi bi dama la bëgg expliquer rek finance wifi bi ñi ci bokk ñëpp mooy institution intermédiaire yi agence gouvernementale yi chargée du développement des petites et moyennes entreprises là de la contribution de la femme et de l'économie telle que la l'ADPME, hein, la direction des PME, le ministère du Commerce et du PME, la direction chargée des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin, hein, ministère de la femme ñoom ñëpp ñu ngi ci biir tous les dossiers yi nga xam ni financement bi day jaar ci ñi nga xam ni ñoom ñooy tàmm euh, di euh, li nga xam ni tasaare appel d'offres yi. mais mais tey jii pas Assane mu mais loo xam <laughs> du ma cité. du ma ñëw ci ci yenn agence ak yenn kii. mais c'est bien la on sait très de quoi mhm. dañuy defar suñu business plan defar suñu projet teg ko laaj quinze wala vingt millions mu war a génn ñu jox la benn circuit boo xamante ne au retour tu vas te retrouver avec douze wala treize millions on te dit nii lay demee. mais dëgg la. dafa am fu muy jaar am na. Mhm. diw day laal cinq cent mille kii un million. man dem naa teg bu ñu bëggee nañ dem. Mhm. ñu débat ko. ak ñoom. ñi nga xam ne wóolu nañ ko ma indi leen lépp teg carrément diw day laal un million kii trois cent mille kii cinq jotuma financement bi et j'avais am na fi Mm-hmm. te boo bokkul ci mm-hmm. yenn lobbying bi. wala ci wala ci parti bi duñ ci parti bi duñ la jox combien de personnes lañ ñoo daw. Mm-hmm. ñoo jël xaalis ba pare daw duñ ko fay. wax nga wala nga nekk jigéen boo xam ne excuse moi mu euh, sa asma pour terminer. ñu ñu lay chantage yaa dama yàlla ba li ñu doon wax ci promotion canapé ak yooyu. en man ce que moi en tout cas moi en tout cas ce que je tenais à préciser mooy ce projet. teg nga ko ci ay fan yu leer ah dina liggéey étroitement avec l'autorité de régulation des marchés publics. te ñooñu xam nañ leen bu baax. kon yooyu yaa ngi gaal nga xam ne voilà. mais xam naa ne financement banque yi peut-être. xëy na am na affaire yoo xam ne mais financement yi nga xam ni moom moo Banque mondiale moo ko teg yaakaar naa ni dina jaar yoon ba pare ONU Femmes di ko piloté ah mooy euh, nuyu ki nga xam ni moom mooy Oulimatou Sarr directrice régionale ah d'ONU Femmes euh, du centre et de l'ouest moom itam dinañ ko dinañ ko en fait je lui ai parlé au téléphone maax moom dinañ am euh, daje ñu gën a waxtaan ci li nga xam ni mooy autonomisation de la femme ak entrepreneuriat féminin parce que yàlla dafa def nii képp ku nekk bitim réew yor financement yéen ko jigéen Sénégal par ONU Femmes ngay jaar Euh, kon nag leer na nañ li kenn du ci tege ci leneen euh, ci noon nag li ñuy jublu rek daa ji dem ci li nga xamante ni mooy suñu revue des titres euh, mhm. bu ko defee on retrouve Mame tout de suite